waaw ginnaaw tampon musical boobu ñuy dalal suñu uh, sama sister Fanta Suguna Fanta ni ñu ko waxee tey nga war a waxtaanee ci uh, appel du muezzin maanaam nodd mm-hmm. ak ni ko war a defee wat yëpp uh, mm-hmm. ak suñu bàyyi la nga nuyoo ak sa invité waaw xam naa dañuy bàyyi moom mu nuyoo rek comme euh, sànq nuyoo nañu téléspectateurs yi. Euh, ndax xam naa ne mu présenté wu du gan fii ci kër gi. Mhm. Euh, Oustaz ñoo ngi lay bàyyi nga nuyu téléspectateurs yi. waaw ñu ngi sant yàlla tabaraka wa taala di yeesu suñu wëlër ci yonent bi alayhi salaatu wa di la gërëm Fanta ku baax nga. Mhm. ku bëgg islam nga. ko koy xeeñtu nga. macha yàlla yàlla nga am ndam. di ñaanal nag Sidi Lamine ñaanal yàlla yokk leeram ak doomam ji mu fi bàyyi li nga xam naaloon na ko mhm. mottali ko di gërëm nag suma xarit du xarit àdduna bépp rawatina ummal islam bi mhm. eh, di wax dëgg yàlla oustaz Haadi mhm. Haadi dafa def lu ci adduna bi mooy stade mu dem yóbbu fa yont bi yóbbu kàddu islam yóbbu fa na Tidiane yóbbu la fa bàyyam nag ndax loolu yombut foo xam ne dañ fay fo foo di fay xaas ba par du fees moom mu dem fa indi fa yonent bi kenn paasut mm-hmm. kooku islam nag moo ko may ak i jàmm xaadi yàlla yàlla dafa la jàmm yàlla yàlla barkeel la eh, ku dul wax ci islam te du jay la man sama xarit la mm-hmm. eh, di la gërëm di gërëm sama jigéen ndax maa moom dañoo bokkoon ci ay isaa yu nekkoon ci rajo mm-hmm. eh, mu am yar nii la ma sa mel am na yar am na teggin am na respect uh-huh. yàlla yàlla dafa la ndam am na sa sëy dimbali la nga bëgg yàlla dafa la ko mhm. ah man oustaz Cheikh Saad bu jàgga ku ma xam-xam nga ma man mhm. eh, sama yëpp ci wàllu islam la jëm mhm. nekk eh, historien xam naa ne du ma firikat alxuraan du wax ci ay bëri man naa ko waaye histoire moo sama matière mooy yonent bi ak lu jiitu yonent bi yan koom koom koom la amoon ci pays islam bi ba nit ñi war a xam kon looy wax ak looy def war nga ko gëstu donc tey moo tax li nga ma indi eh, muy ci rek lu am solo ci wàllu Eh, waxtaan ci al azan bi maanaam azan mooy nodd mu azin mooy kii nodd mhm. mu azin noonu mooy noddkat yi mhm. eh, noddkat yi nag di gërëm nag alaaji daaw da ñang ca tëngij meeru tëngij gërëm ñëpp barakallahu eh, noddu oh, noddu appel la mhm. appel la boo da xam ne bi feeñuloon màkk màkk bi yonent bi nekk màkk ba war a woote war a dem bàyyi ko màkk jëm Medina noddu amu foon ci daaru am ibn ar arqam doon ngeen daaru arqam ibnu abi arqam kon ne koo xam ne ko moomoon këram la nekkoon ca saf safa safa kër moo doon kër Abu Sufyaan mais boo génn nag tuuti xasab mètre mu nekkoon daaru arqam ibnu arqam mu doon siège social mhm. bi maanaa kon boo ko dee wax ni dëggu ko ci politiciens yi mooy permanence fa lañ daan toog yëpp di jàngale diine di jàngal éducation formation bu julli jot rek dañuy def comme ni laay ni def mhm. dañuy sikkar sikkar ba seen kër ñu dem mhm. ba ñu ngi sikkar mais foofu la commencé woon léegi nag ba ñëwee ba Medina yonent bi histoire Medine lu am importance la. Mhm. xam nga ni ñëw na bëri na yonent jóge na Makka dem Medine mais am na ay jaar-jaar. Mhm. masjid Quba Quba bi ngi dégg boo moom ak ak Medine 16 la mais yonent am na fa juróom-ñeenti fan avant mu dem Medine fa la njëkk a jullee ajuma. Mhm. te boobu kenn dootu fa noonu da nga xew Medinatul Munawwara bi ma ana kon noddu bi ñëwee ni mu xam ne léegi nag islam yaatu na bëri na nit. ñu dalal ko màkkatal mu karam asawal na mu nawara tabal ko fa néegu yàlla te ko ko fa defal koo xam ne bu añee du reer amul dara mu ne yonent bi nag comme gan nga fi man maay sa njaati gi kër gii la ko xam may naa la ko mul kër gi laa dafa ne ko may naa la pàkk bi la la may pàkk bi nag bi ko yonent bi jëlee moom nee na ko du ma ko yitteelu lu dul néegu yàlla kon al baytillaahi néegu yàlla bi bi mu ko ko may yonent bi ne ko may bi baax na yéen bu rafet la waaye dama koy jën ndax dama ëllëg dama bëgguma bugguma héritage bi ma ànd na ndono ak coowul wax kon jàkk foo koy def war na lew ndax kenn du ko miraas kenn du ko doon mhm. alal yàlla ndax yaa ko askan yàlla mhm. yonent bi jël ci àdday jullit ñi jox ko musal ayibul ansaar yi ko lii def nga yéenu ju rafet mais maa la ko jox ngir ma jënd ko ko mhm. boobu nag ñu toog ba yàgg yonent bi daal di woo saxaaba yi yëpp toog mu ne leen il est temps jot na bañ nekkee bañ nekk màkk nit ñi bëri am ñu amoon gëm yàlla mi dañ ko doon nëbb ñu jaar ci yoon jaar ci ba agsi fii madinatul munawwara war a war nañu xool bu julli jotee lan mooy ñu koy yëgal xam nga doomu aadama boo dee jiis diisoo doo juum al mustasaar mu'tama léegi nag ci biir waxtaan woow ne seet leen bu bu bu julli jotee lu ñu ko yëgal am ñu dox ñaari fan bu ñu yéene yonti bi waa te ñu jël ay weñ di ko fëgg kaŋ kaŋ kaŋ mun naa loolu di nasaraan ya ko moom mm-hmm. ñun duñu roy kan am ku ñëw ne nañ jël béjjën yatt ko di ci yuuxu mu ne kooku juifier ko moom Zeyd ibn Xaaris mi nga xam ne bi nag moo njëkk a nodd du bilaat moo njëkk a nodd mais nan la noddee dafa toog benn jour ci néegam tëdd nelaw ba ay vers quatre heures et demi bi maanaam wala quatre heures du matin wala xaaju guddi am lu ñëw ne ko këpp këpp mu yew ci nelaw kon nekkati li xew ci li xew ci biir nelaw bëri na it maam Ibrahima ba mu ne rey doomam ci nelaw la woon yonent bi nag ba ko yàlla ba ko yàlla na ko eh, jibril fekk ko ci xaarul xiraa sonnal ko ngir mu jàng ci nala la ko jëlee mu ne ko jógal mu jóg mu toog mu ne ko dégg naa ko sonn nga ci bu yonent bi soxla ndax nag ku jógal yonent bi la mhm. ma jàngal la ay baat mu ne ko yan baat mu ne ko waxal allahu akbar mhm. yàlla màgg na mhm. allahu akbar yàlla màgg na ashhadu seedana an laa amul benn buur illa allahu ku yàlla wa ashadu ma deer seet la in ashadu anna muhammadan ni ki muhammad abduhu jaam la waaye nag wa rasuluhu missionnaire la ku ñu yónni la hayya a ñëw leen hayya a ñëw leen fu ñu jëm ala salaati ci julli fi ah, fi masjid ci jàkk ji hayya ala fanaax ñëw leen ci waar bi kon bi leen ñëw leen ci julli gi neel benn waaye yem ci mu ne ñëw leen ci toolu yàlla bi ndax doomu aadama boo nekk ci ci waar wi di bay ah, am nga la jiw su màggee ndax du la jariñ mu ne mu ne ñëw leen fadax bi maanaa ñëw leen ci toolu yàlla bi bi maanaa falax bi dana fiir ñaar waar wi ak ajjana kon kii bëgg na nga texe àdduna ak alaxira mhm. allahu akbar yàlla mag ne laa ilaha illa allahu benn buur nag pour yàlla kon moom lañu jàmm mhm. ba mu ko ko waxee deux fois ba mu makkal ko mu ko répété ko ba mu ko répété ko nag waajo na fes mu tombeeg mu yow bi mu yow ci ci coona ñëw si Seydina ko man de ci fajar am na ku ñëw wala am na lu ñëw di ma jàngal ay baat mu ne ko yan baat mu ne ko mu ne ko nettali bi mu ko nettalee ba mu àgg yonent bi ne takbiir bi maanaam tudd leen yàlla saa ba yëpp kontaan mu ne ko kon nag comme yow sa baat dafa diis wala sa baat neexut mu ne ko répéteel ko Bilal ibnu Rabah nii la demee waaw oustaz ma ñëw ci li nga xamante ne Fatou mhm. Faye ndax mhm. dañuy faral di gis ni euh, euh, oustaz mhm. bari na ñoo xamante ne nañ ma baal ci kàddu bi ndax tamit question boo xamante ne euh, bu ba léegi nii ñaa may ne naa ci waxtaane donc du loo xamante ne lu jóge ci man la dañuy gis ne ñu bari dañuy foo seeni àddina wala seeni ndaw ba ñu sonn ñëw di xëccoo ci biir jumaa yi ci li nga xamante ne mooy Bilal te Bilal est-ce que nit mën naa tëb noonu rek ñëw nekk bilaal mhm. wala nekk noddukat mhm. te tamit aussi euh, euh, nekk noddukat dañ koy jàng tamit mhm. lan moo tax nit ki di foo ba mu ba mu ba mu sonn euh, bëgg ñëw nekk bilaal di xëccoo est-ce que du dañ leen di war a fal wala xam nga bilaal ak imam ak délégué de quartier monsieur maire monsieur président ñoo war a bokk même degré l'islam la du lu ñu fowe war nga xam structure ak règlement intérieur bi maanaa yow lii nga engagé parce que engagement la. Mhm. su du force. bi war nañu xool jaar-jaaram. Mhm. naissance bi maana xam-xam ci wàllu alquran. Mhm. war na mokkal fiq mais war na nekk al adal bi amaana ku mo ku maanu ci fen. sàcc jiw ay meno ay doxan. parce que nag da da da nga yor lu rëy. mais nag c'est-à-dire que yaa ëpp dëgg daraja tuuti bilaal bi. mais bilaal ci boppam war na am kaddu gu rëy. bi maana même baatam bu neexul nag kaddam fort. ndax jamono yonent yàlla Muhammad amuloon micro moo tax ñu daan taamu ko ko xam neex na baat yëg ca kaw ca montagne yi bu waxee allah ñëpp dégg ko mais léegi na am na sonorisation mais li ci taamu mooy na baat bi neex neex waaye na xam araf lu tax muy loolu parce que ñi am xam-xam ku mel man ak euh, sëñ Sisi mi toog bala ñu nommé imam wala wala Bilal dañu waroon toog fii indi ko wal fajiri mhm. alhaadi wala euh, Diouf woo ko nekk noddoo ñu déglu mhm. bu na ñu dugg ñu ne ko ay li yow rafet na waa xaraf nii nii nii yaa ngi koy wante war ko nam mhm. parce que appel ngay def mhm. bu dee sax ci yoon sax bu dee xam bu du heure noddu julli sax war nañ ko mu a toog mu dëkk ko di ko tekki parce que dangay dem ci réew arab yi dégg ko noddee rek da ngay sawar julli ji mhm. ndax lan li mu lay woo dafa neex ci xol waaye bu xam bi am xam ne am na solo léegi nag la problème mooy Sénégal booy don ñi naayif ci affaire bëri na bëri na ko xam ne bi bu demee bañ jiite ko imam day fekk moo fa sës ko xam ne bii day jël kaset jàng ñetti aaya ñetti hadis ñëw taxaw loolu loolay handicapé bi. Mhm. te bu ñu jëloon ñun ñetti daara yi comme nga xam ne bii sa léppam alquran la bind nga wax nga tari nga tara tariwaat jàng naxwul waa di awal yusuf awal saani saalis yow comme ponki islam lii defar yàq julli ak la koy defar lii sangu set jikko yu baax yi am na ci yow mais yow lañu war a jiital. Mhm. loolu moo tax souvent bu ñu noddu keneen di wax parce que xamul règlement yi. Mhm. ndakam drapeau Sénégal nga yëkkati ñëpp taxaw noppi. te kaddu yàlla ko ëpp solo mhm. mais kaddu raay la la mhm. kalimatullahi la mais raay la mhm. bi maanaa léegi lu war am solo mooy man du ma sax du ma balaa mi yi nga xam ne bii dañuy jëkk nootu neex ñu baat ñi war a neex baat dematuñu nootu ku mel ne man wala amuñ jot su ko defee nag ki nga xam ne nag gëm yàllaam foor na ba foor boo xam ne xamu fu jëm day jël valet naa noodu nañ ko bàyyi mu waaye nag jéem ko nag tof toftal ku neex baat muy xale formé ko ci daf ci baax lii moo tax ñu ne kon kii woote kan la kon neex baat bi daal mooy critère bu njëkk daal si am na solo mais amul yeneen ne. non non kii rek mooy fexel fexeel yow. Mhm. te te bilaal bi noddu war na war na war na war na mën a am war na mën a jiite. Mhm. ndax léeg-léeg imaam xam nga tey léeg-léeg imaam day am lu ko empêché. Mhm. imaam mën na jamuj loo tax ñu ne kon imaam bu ne ci minbar di julli ñetti borom xam-xam war na ci gannaawam en bu demee ba am lu ko dab mu xëcc kenn kaay moom génn na. lam génn nag doomu aadama nag doomu aadama tut waaye nag kii la ci ginnaawam war na mat ndax moom man na alquran man ko woon xadis mhm. ndax erreur bi imam def fan la ko fekke mhm. moo tax ñu ne noddkat bi war nga xam cha bi ma ana waxtu wi ngay nodde mhm. war xam li ngay wax lu mu doon ak ñi ngi koy waxal naf dina leen corrompre bañ déglu si la fekk fekk si la. ak tamit oustaz ci maanaam noddu est-ce que kii war a noddu war naa sol yére boo xamante ne bu yiwadi ak tamit aussi tamit buy mhm. takk chaîne. Mhm. di noddu génn tase yem ak say. say xarit mais ah tey jii nii nga gisee sama noddu. kon mhm. est-ce que boobu moom def na te yàlla rek tax wala dafa def loo xamante ne yëfu ngistal la. ah diina nasaafa. diina set la. inna allah jamil yuhibbul jamil yàlla dafa rafet mhm. bëgg lu rafet mhm. kon war ngaa sol rafet mhm. beneen bi ci des mooy takkaay ci boppam góor dafa am ñu fu ko islam limité benn jaaro bu ndaw ak mën a mel jaaro na nekk benn chaîne moom islam bëgg ko ci góor moo tax Xaalid ibn Waliid bi mu ñëw ci Seydina Muhammad xare xare Uhud passé mu toog na ko daal seet naa bi xare bi jeexee am naa problème sérieux mënatuma nelaw jaaxle naa ma xam daal ba ma nekk Màkka officier daruma mais bi bi xeex bi jeexee ma xam ne réglé wu ma dama bëgg nga war ma islam te sana bi ma ñëwee Medina nag dafa mel commencé wàññi ci man bëgg naa nga wax ma islam ma dugg ci xam nga lu ma ko njëkk a wax tekki nga yore tekki benn chaîne bi wëtu dugg jàkk ñaareel bi yu bëri yi xam ne fi ceedu dindi ko mhm. bi mu dindi ba pare mën ko nekk léegi mën nañ commencé waxtaan kon nag li yonent bi bañ ca Medina sëñ Tuubaa di ko bañ alaaj maa ko bañ ñun war nañ ko bañ mhm. mais problème mooy ñàkk ñàkk xam règlement ñaareel bi ci des tamit ni ngay comporté woo mooy war nga yiw ndax ku xool ñeme la bi ci des mooy te na nga nekk koo xam ne bi danga nga dal dal ci mooy bu def yëfu caaxaan ci mbedd mi ñi mhm. quartier daa gis bilaa yoo xam ne bi bu lay rombee ay comédien lañ mhm. ñi ngi bëgg di jël micro central ci politique ba bëgg toppkaay ci yi mais di war na xam yow danga nekk ci néegu yàlla bi mhm. néegu yàlla bi ñaare yow yaay def appel war nga andoo comporté woo te yàlla moo subhanahu wa taala moo bëgg nit ku yiw même bu dul noddukat même bu dul jiitekat Sénégal nag lan nag leen mooy nag dañuy bëgg diine te duñ ko jàng Sénégal mooy lan lenn dañu fonk ku dul diine te loo fonk lu diine diine gën loola. bu dee ci antécédent maanaam ci gannaawam daawoon na def yenn jëf yoo xamante ne di pooru islam mu jékki-jékki ñëw. di nodd jékki-jékki waaw. an nadamu ala ma fata dama ne naa la waxte benn secret boo xam ne bi du secret lu neex la. Mhm. am na koo xam ne mi tuddoon Mughirata ibn Shu'ba un grand agresseur la woon ci jamono Seydina Muhammad. daan kar nit ñu baax ñi di leen rey jël seen alal. Mhm. tuub mais dafa tuub. mais dafa tuub yonent bi récupéré ko mhm. récupéré ko defar ko ba mu baax ne ko nag ñibbil sa kër mun ko maa bañ mun ko lu tax mun ne ma parce que ba sama njaboot yëpp biñ ma bàyyi yaa ma yaa ma recevoir mhm. mun ko lu tax mun ko sama ndey sama dee na sama bàyyi dee na kon amatuma mbokk kon léegi dama bëgg Rasulaay bàyyi ma ci kër gi mun ko waaw kër gi nag moo mun ko bàyyi ma fi ndax ku baax nga xamaloo bon xamaloo bon yow Rasulaay ku yiw nga xamal lu dul yiw te saay saay léeg-léeg ñu rax dugg ci kër gi te xamee nañ ma dégg nga ci na ko ba mu baax mu ànd ak Seydina Mohamed mais nag bu daan ànd ak moom ci to bi ma ana mooy garde corps yu yu toppoon yonente bi mhm. neuf personnes yo woon mais moom Rasulullah daan dem ci problème yu xaw a metti moom la daan àndal dem na mu ànd ak Ababacar ànd ak ànd ak Omar ibnu Xattaab ci Ousmane lañ ko jël def ko gouverneur Yémen xoolal un nagre mujj mu garde nekk Seydina Mohamed fu mujjee gar ku fu mujjee gouverneur mhm. mais dama ne mujj gu rafet mu am solo mhm. kon dama ne doomu aadama man loo mën a mel mel mel islaam bu ñu doon wax tey ñi ci jaaroon nekk ay yéeme. Mhm. da nga da nga da ngay dar sa bopp. Mhm. waaye nag boo demee ba tuub. Mhm. yàlla islam nee na bul fàttali mukk lu ñaaw la jublu ci nii nag ba bul ñaani mukk ba ba ngay faatu delluwaat ci loolu moom laa la Laxdari wax. kon doomu aadama nga xoolal mu xam ko góor ki mukk jigéen ko yem. loo mën a mel ne mel lu metti metti ci lu doo xam ne bii ngor nangu ko. diir na ko say mbokk bëgguñu ko bu xasee ba dëpp rek yaa yaa ñëpp a yem est-ce que doo leen gën mhm. defe naa laaj bu mujj bi dama koy laaj moom en tant que oustaz mhm. des fois tamit ngay jiite juma mhm. ngay rombo nit ki di noddu des fois boo déggee noddu bi sax yow ni jàng di nga xam ne kii nu muy noddee noddu bi teguwul ci yoon jaarul ci yoon loolu lan lay def ci yéen en tant que oustaz yi man day mel ne dóoroo ma mais da nga maa poñe xoj ma ki nga xam ne lu wax gis nga nuuru ilaahi bu nekk ci yow leeru islam mhm. alquran mhm. buñ koy jàng xam na am na ko xam ne bi bu digg musique mooy gën a kontaan bu digg alquran mhm. su ko defee nag yonent bi nee na sallallahu alayhi bi nga digg bu gën a nekk sa xol mooy kon ne yoonu foofu nga féete am na ko bu digg alquran xol bi day tàng kon yéefee nga doon natt natt jaru ay na diw day sol yére dëgg la mais natt rek mooy foo digg alquran sa xol bi neex di ngay léegi nag alquran bii ngay wax nii xam ne moom nga am ba tax na moom nga am ba am ko islam fàttali ko waa li nga war a wax nga ne. maanaam bu fekkente ne yow mi ustaas. Mhm. jàng li nga xamante ne mooy diine lislaam jàng alquran gu leer nàññ nit ki di nodd nga xam ne kii nu muy noddee nodd bi jaaruwul ci yoon. teguwul maanaam alquran gi setul. Mhm. lan lay def yéen ñi nga xamante ne yéenay ustaas yi. daanaka agression morale lay doon ci dem. Mhm. dañ la agressé. xamul tax mu métti la. Mhm. parce que jàkk joo gis kër diine boo gis dafa am commission. Mhm. commission religieux organisation formation mhm. tout ça. ñooñu ñoo am buy sanctionné yàlla am yoon lay sanctionné toujours islam nee na fa aati xaw sa bariha kenn ku ci nekk l'homme qu'il faut mais à la place qu'il faut. ku ne jox ko moom am na koo xam ne bi xamul dara ci alquran mais baat bi neex na mën naa noddu. waaye nañ ko war a jàngal li nga noddu li ngay wax lu mu doon. bi ci des mooy que doomu aadama ci boppam gis nga soo gisee ñu bëri islam ñu bëri xaw ko ragal. yoo xam bëggoon na ci dugg. Mhm. ñooñu islam yëpp am ñooy dem di déborder ci ay manière mooy jub ñublan mhm. def ay erreur humaine en tant que adama aadama. Mhm. dem di ay looxër mbaa ñu fekk la foo xam ne bi islam bëgg ko nga fekk fa dafay dafay def ay carte ay yu mel noonu ah, dem ci ay soirée yu mel yoo xam ne bi mais islam nee na képp koo xam ne bii may am na xam-xam ci diine leel benn ñu bett ko muy muy def lu njaaloo menoonu noonu keroog wartu jiite wartu nodd keroog ñu ne képp koo xam ne bii tey boroom xam-xam na fekk nañ ko mu sàcc keroog bu doon may ko na tas parce que diine gën war ko rax a mhm. léegi nag ñooñu nag ñoo yàq nag diine ji ba tax na ñi ci bëgg a dugg ci biir Seydina Muhammad dañoo ragal waaye nag xamu tax l'islam bi comme ñi ci ëpp léegi dañ ko bëgg a def folklore mhm. xaqiqatan jàngatuñu ko wala amatuñu yittee njàng mhm. su ko def nag islam ne kon yonte ba sa yaqti adon nazo zamanan bis ngi ñëw nag jamono la wax laa yaqa min islami illa ismuhu dara doon des ci islam bi lu dul ay communication wa min qur'ani karim ila rasmuhu alquran li muy bëri bëri bëri ñu bëri dañu xool eh, pare nañ ci waaye fa law anna almuslimuna dabaqu ma rasmu alquran min taalimi la wax lama wajaduhum baynahum faqir yéen itam ne ci bi ngeen xamoon valeur alquran doole ji gën Sëriñ am am na am na usine am na usine mais lu tax ñu daan dundal junni nit ci ci ci daara ji état joxoon kenn dimbaluñ parce que yàlla ci teg loxoom dañoo gëm yàlla xam ne mission la ñuy dox ñu sor ko yàlla nag yàlla moo ne nag ni ma leen fi indi daa leen di wërsëgale mhm. ñu gëm ko nag ñu ñun gëmatuñu ko léegi mhm. kon lu ko defoon islam daal day day diine joo xam ne bii diine gënu ko waaye nag bu yàq yàqoo ñun ñii nga xam ne tey ñoo ko yàq ñun ñi xam ne xamuñu ko mhm. waaye ñi ko xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mag ñu bëri dégguñoon arab mais dañu déggoon arab sa daaw ñu làkk arab mais dañ ko dégg xam nga xam nga lan mooy diine mhm. lan mooy lekk arab mhm. defal lu baax bàyyi lu bon xalilan yukfikum min xayri kasiran yur dëkk sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dama ne yàlla ko indi mu xayru naas yi neel benn yonent bi jàngal suñ mag ñi sun mag ñi jàngal seeni doom léegi dem nañ ba mujj ndax axir bii nag fi ñu toll nii mooy léegi lu lu mag yi bokkoon yëpp ñu ngi koy commencé yàq ndax lan jéemuñu tu jàng islam fonkatuñu yàlla subhanahu wa taala xam nga man mi yo tey nodd laay waxtaane tey mhm. tey jumaa ma nekk fa laay waxtaane wax leen kii noddu kan la xam nga tey léegi yaa ngi dégg noddu ajuma ñett la mhm. mais jamono yonent benn la biti réew am benn la mhm. waaw lépp lu tax ñu def ko ñett bi mu ñëwee xilaafu Abu Bakar Ousmane imam Alin ci Kuufa boobu Alin ma nga ba nga ci lañ defee ñett ñetti noddu boobu boobu Madine mi ngi am popularité popularité nit ñi bëri na mu ne kii noddu noddu awal bi maanaa ajuma ki njëkk a noddu bu waxee ba pare kii bayaan bayaan mooy ki leeral day ñëw def waxtaan wi mu ne kenn ci euh, noddkat yi demal cam demal sama kër mu ne war jaa kër Ousmane la woon nga nodd fa mu ne kenn ki demal marché okas nga nodd fa yow boo noddee fii neel benn ñii ca koñ ba xam ne kon us kat jumaa ji léegi mu commencé mu ne demal marché okas yow nga nodd fa ñu ne kon léegi julli commencé par xasabu dix minutes su ko def ñëpp daje ci masjidu Seydina Mohamed mhm. julli mhm. Mhm. ko def taabi moo tax souvent ñaare ñëpp du ñu naqari baat faw am ku baat ku baatam neex seetloo ko ñett ñëpp du ñu sedd kon ñun ñun ñuy gone su ma masaan nodd dañu man may may xaalis <laughs> boobu alfalax jànge su ma nodd ka wala nit dañaa romb de moom ay 10 francs ñaar a waa lii lan la ñu ne walaay doom ji parce que dañ ma ko formé barakallah samay doom barakallah ay nootukat lañu waaye di ñaan tabaraka wa taala yàlla yàlla dafa leen jàmm ndax émission bi yaatu na yaatu bu toll ne li nga wax ci noddu noddu daal noddu appel la mm-hmm. appel la mooy waxtoo ngi ñëw ñoo ko yëgle mm-hmm. bu njëkk ba dañ daa yëg ci kaw montagne di ko wax waaye léegi nag comme léegi micro la mm-hmm. nañ formé sunu quartier boo gis am na xale boo xam ne bu ñu ko formé léegi mu jàng nopp mm-hmm. te bu noddi bi nag baat bi neex bi dafay attiré nit ñi mm-hmm. te nañu yóbbu yéeg soo leen yu yëw mm-hmm. te xam ne néegu yàlla la te bàyyi mayo yi ñu fi yóbbu mayo yi ay ay Sadio Mané nekk ay euh, Brésil la xam nga xati <laughs> Messi la xoma xam lu ko waral da ngay sol mayo dugg ci biir jàkka léegi Iblis xool ko ne ko léegi mayo bii ah. moo tax dañuy sol yëru yu rafet ndax <laughs> yàlla la ab sëriñ kenn kenn du dem kër présidence di sol maillot mhm. di kër xaalifa di sol maillot di ñaan sabaraka taala mhm. ah yàlla yàlla defal la jàmm amiin oustaz Diago toujours disponible <laughs> toujours di la jaajëfal rek xanaa kay wala nga ñu ci plateau wal fajiri Fanta Suguna mhm. bàyyi nga tàggatoo ak moom waaw tàggatoo moom xam naa maa ngi koy gërëm sang sang euh, ñoom Euh, Adja Ndeye Salimata Sawar Kaffrine mm-hmm. euh, Moussa euh, Moussa Kandé Mokhtar Fall Saliou Dieng Sémou Diouf mm-hmm. grand boo xam ne bii mm-hmm. mooy noddu noddu ko ca Saloum di gërëm nag waa ginnaaw rey Abdoulaye Diop maire di gërëm nag daaw di ñang benn sama xarit uh-huh. dëgg la asalaamaaleykum waxtu bu baax jaajëfal rek Oustaz Diaga di la jaajëfal Fanta Sougna bàyyi nga tàggatoo ak mbokk téléspectateurs yi waaw xam naa ne tàggatoo bu dul tàggatoo xam ba àjjuma <laughs> incha allah waaye mm-hmm. Fatou Diouf Faye mm-hmm. xam nga ni man tamit dama am samay nit ñoo xam ne samay mag lañu samay soppe lañu ku mel ni Fanta Sougna euh, sa toxandoo bi Fanta Sougna waaw madame Diarra cité Aline Sow maa ngi koy nuyu bu baax a baax Yacine Cissé Ami mm-hmm. Makalu ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu bépp téléspectateur bi ñu seetaan ci mm-hmm. Walf TV xam naa ba àjjuma incha allah mm-hmm.